100 contacts suivis par nos services, 4 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Pikine 1, Benetali 1, Sédhiou 1, Vélingara 1. patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann de l'hôpital principal. L'état de des autres patients hospitalisés est Comme annoncé hier, le Sénégal a enregistré son douzième décès lié au Covid-19 le mardi de 37 ans. Le ministère la Santé et de l'Action sociale prie le bon Dieu pour son repos à sa famille euh, éplorée À ce jour, 1433 cas ont été déclarés positifs, dont 493 guéris, 12 décédés, 1 évacué et donc 927 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale les populations au respect de prévention collective et individuelle, maa ngi leen di jottali lim bii ñu am tey ci mbas mi ñu naan Covid 19 ci fii si suñu réew ci ba tey bii di juróom-benni fan ci mois de mais mille 2020 jot nañu résultat virologique yi ci junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko téeméer ak ñeent. dellu ci nañ ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu téeméeri contact am nañ ko mooy yi nga xamante ne ñu ngi koy saytu te di ko topp ci suñu bëri bu liggéeyukaay yi ñeenti ci ñoom moom lañuy ñuy wax cas communautaire ñu ngi ci diiwaan yi pikin am na benn benn tali am na benn Sédhiou am na benn Vélingara itam am na benn ci malade yi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital feebar ñaar fukk ak ñett ci ñoom bi ñu leen saytoo gisatuñu ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu am nañu nag juróom benn cas yi nga xamante ne ñu ngi ci service réanimation yi hôpital Fann ak hôpital principal ñi nga xam te ñoo tëdd ci malaat seen wér-gu-yaram ñu ngi am tan comme ni leen ko waxee démb ñu ngi am nakar di leen wax ni Sénégal amaat na beneenu nit bu génn àddina mooy tax mu tollu léegi ci fukk ak ñaar kooku nag waxambaane bu am fanweeri at la ak juróom-ñaar ñu ngi jaalee waa këram te di ñaan yàlla xare ko ajjana ci bésu tey bii dalee ko ba mbas mi ñuy wax Covid 19 ñëwee ci Sénégal ba léegi ñu ngi tollu ci junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett ci li nga xamante ne. ñooy ñi am doomu jàngoro ji ci yooyu ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett wër nañu fukk ak ñaar génn nañ àddina benn delloo nañ ko ci dëkk ba mu jóge woon ci ñi nga xamante ne ñoo tëdd tey ci lal hôpital feebar ñu ngi toll ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ministère de la santé ak action sociale mu ngi ci di ñaax askan wi ne lépp loo xamante ne mun nañ ko def te ñu dikkal leen ko ngir feebar bi ñuy wax mbas mi Covid 19 dootul dugg ci Sénégal te bàyyi wàllante bi itam loolu yëpp ñu ngi leen di ñaan ñu def ko. rawatina ni ñu leen ko waxee woon suñu mag ñi suñu yaay yi suñu papa yi suñu tante yi nañu def lu ne pour ñu toog ci kër gi bañ a génn lu bari ci mbedd mi rawatina tamit xale yi tamit nañ leen di gën di topp di saytu ngir bañ leen indil jàngoro ji. ñu ngi leen di gërëm di di sant